أنت الرحيم الصمد الرحمن المؤمن المؤمن الآن في بلاء وجملة وباء وسؤال أهداء كل داء يا ربنا إن الورى تضرأوا لأوليائك ما أن يسفوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فقل لنا وجلنا لطفا وأمنا يا أحد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 لم يبدو مثل المصطفى محمدية سرا وجهرا في برايا صمد مدى لنا الإسلام والكفر ما وبه نصيحة لكل سمة يقول بظاهر والباطن من عطاءه لله في كل سمن حلمته عن أيوب أذهبت ماءها بماء كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يسد ذا حي ويسلك ذا كفر وينصر ويسلك يا الله محمد المسكى الأحيار خائدين للجنة القل يوم القصر يا الله commencé à moom à peu près mën suma xam exactement ce que mais yàgg na parce que xëy na booba sax xameewu kilewu ma bu baax miiru ma bu baax daal mais fi gën a wóor daal su ma ko tàmbalee man su ma fàttaliku ko mooy kër sëñ bi Seck kër sëñ Abdou Lahad Seck fii ci sañ suuf te te boobu ak léegi war na mat war na toll ci fanweer at ak juróom bu ko matul exactement war na toll ci ay fanweer at ak juróom ak yooyu ci biir néegam laa ko jëkk tàmbalee mooy jàng yi sëñ Abdou Khafour Mbacke jëkk def fii à Saint-Louis maa ngi ko tàmbale def ci ay der laa ko tàmbale mu ñëw ci t-shirt yi ñëw ci miir yi fubal naa nekk naa fekk samay morom màggee naa fi jubloo naa fi màggee naa fi mais daal xaar moto laa gën a préféré parce que léegi daan bokk ndey ak baay nga nekk euh, mécanicien man ma nekk euh, menuisier ki nekk leneen yàlla daal moom mooy dogal moom mooy seet du ko neex mu def ko doomu aadama ji donc yi ma euh, nataal yi lépp lépp kooku moom ma parce que def naa ko fii ba Nigéria dëkk bu ñuy wax te fu ma jaar rek man fu ma romb rek foog ma dóor fa benn waaw lu mu xat-xat moom naa fa def benn moom dama xamul nag na mu demee te xëy na naa am nag ay benn benn yu may fàttaliku fu ci mel nag ay San Sandra ay San Pedro waaw ay Coutinho ay Dahomey yooyu moom mais ci fii ci biir Sénégal aussi def naa ci région yëpp mu ngi fépp ci région yëpp moom ci biir néeg yi nag la ëppee. rawatina ci mbedd yi fii surtout fii à Saint-Louis parce que boo gisee sama ëppee Saint-Louis parce que Saint-Louis fii la Cheikhul Khadim ñëwoon fii lañ ko woowoon fii moo dëkkoon premier capital donc fii la signature bi amee woon tu vois ここ。

mën nañu wax ni yoonu murit fii ci ndar la jëkk yëngoo amoon na naam ndax sëñ Bamba bi moo jóg moo ci nitam foofu la sose yoonu murit waaye nag ca Mbàkke ña ngi ko sose ci Mbàkke Kajoor mais fii la yëngoo parce que fii la nit ci jóge di ko manifester di ko xulóol di ko waxal di takk seen digg di ko jooyal di di mettitu fii la jëkke kon boog murit yi bare fi lool ñi ko sopp bare fi lool même ñi bokkuloon ci yoonu murit bi même ñi nga xam ne bokk ñu ci mun ni ay xaadir lañu wala ay tijaan wala ay salsali ñoom ñépp dañu sappoon Sëriñ Bamba ndax njàmbaar ji mu wane woon ci diggante mu tubaab bi ak taxawal lislaam njàmbaar ji mu wanoon tubaab bi pour ñu leen man lislaam rek laa gëm yàlla laay ndiga ndogalu yàlla laay la la laay def ndigalu yàlla laay la la def loolu tax ñépp soppoon ko képp ku doon julli fii ci dëkk bi rek soppoon nga sëñ Bamba même boo bokkul bodul guri صل على سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فرحت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لزمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجل المسالق ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاورت بالكتاب إلى دحول جنته جاورت بالفرقان ربي المهين ملكت نفسي وزعزعت العين عزت من دنيا وزاد الجنان وانقاد لي هو واليسف الجنان ولا لي الأبرار في غرايا وانقاد لي بلند الهلايا رافحني إلى الجنان الجيمو وليس وزهر الجيم ترشي عن العين والفجار كون بدء العالمين الجار أكرمني البدء بالكتاب وساعدني عن جلب الإتاب لم يلمني إلى دخول الجنة خير البشارات إلي المنة لم يلعني زجر ولا وعيد وهم الجنان أفا لي أسرى من سن الله قبل ولا إله إلا الله بيبي لما قسني كانوا خربة يفيري أجدولي قلت لك أمنوم جولي نيكون نتراس أدريس yéefar yi nekkoon nañu 1000 boo leen boolee ñaari chiffres yi day nekk 1313 donc boo jëlee 1 bi boo ko taqalee ak trois bi boo leen boolee day nekk B boo jëlaatee beneen 1 bi boo ko boolee ak 3 euh, bi day nekkaat B bon ma su ma defee fii B def point defaat beneen B. bee mu ngi tekki bëgg bamba bëgg bamba xaadimu rasuul loolu laa si jublu daal kooku moom maa toog rek maa toog imagine nga mu ñëw sama xel rek ma ma koy ma def ko signature parce que boo xoolee Cheikh Ahmad Bamba fii moom kenn lool plus nasaraan yi loolu laay calculé moom moo représenté fii ñëwoon fee ñëpp ak ñi woon moo leen représenté fii fee nekkoon nañ 313 moom mu ñëw représenté nañ fii nekk benn waaye donc loolu laa imagine moo tax ma si ñëpp am bëgg Bamba Xaadimu Rasuul bébé tubaab bi jëlee na ko Sénégal pour sànq ko yóbbu ko tëju biir wiir yóbbu ko tëju biir biir li ma kaa yóbbu tëju biir biir nekk na si biir saxaar gi ba julli jot nekk si biir saxaar gi ba julli jot euh, tubaab bi ni ko doo julli sunu gaal ndax yaa ne doo tooñ yàlla te doo tooñ sa borom te boo jullee su gaal daan tooñ parce que gaal gi noo ko moom te boo julliwul itam daa tooñ yàlla mu fab der mu sànni ko si géej mu fab der mu sànni ko si géej wata bee daw wata bee daw euh, der mu sànni ko der di daw der bi si nekk wax ni su fekkee ne moom si gën si suuf si si ndox mi mu tooyee kooku ay xërëm la kooku yomb na mais bu fekkee dafa siddi mu am suuf nga xam ni kooku yàlla moo ko may bi mu sëggee ba pare bi mu siggee ñu xool ko bi am suuf suuf suuf nekk si jëbi bi mu jullee ba pare mu yéegaat saxaar bi labbe bi ni ko yow nit gu gore nga li la sànni loo der bi bato bi di der bi di daw bu la neexoon nga jaar foofu ñibbi mais gore gi nga gore moo la tax nga ñëwaat si bato bi te bëgg bi ma ko bëgg ngir liggéey bu mu liggéeyee lislaam moo tax ma bëgg ko ak euh, sigil bi nga xamante ni sigil ni ko der bu ñuul looloo tax ma bëgg sëñ Tuuba def ko sama xol mu def lu bari ci ñun gisuñu nag Serigne Touba mais dégg nañu jalooreem te bind na wàcc fi te loolu mu bind wàcc fi dañ ko jàng jële ci lu bare jële nañ ci yar jële nañ ci muñ ndax moom mii Serigne Touba amul ku ko gën a muñ ndax natt bu ne daj na ko ci géej gi ak ci jéeri ji di ko muñ bind lépp teg fi loolu nu jàng ko tey ba mën si jariñu lu ñëw ci ñun daan ko mën a muñ ndax moom lu nu mer mer mer bu nu wëlbatigoo tey xool nataal bii sunu xool dana dellu suñu mer jeex looloo tax nu bëgg Serigne Touba am na boo xam ne par exemple dama ñëw ci benn kër sama xarit la waaj ba ma woon man nataalal ko Xaadimu Rasuul ci biir këram ci kër papaam léegi papaam ma ak papaam ñu waxtaan ba jubóo ci kàddu bu ma ñëwee defal ko fa ma toog ak diir lu yàgg lu mat un an deux ans mun ma na nga fa jaar ko ba ma fa jaaree fekk papaam amaat soxna ñaareel bi ma ñëwee bëgg ko fa defaat soxna soosu ni ma bu ko fi def vraiment mu metti ma trop mënu ko dara. daal di gën dem jàngul trop ndaw soosu génn àdduna moo tax sax deux mois ndaw si génn àdduna kama ko santoon doom jow ma li waaye da xëccoo rek yaa ne yiwam tu ma delluwaat ko nataalaat ko la la ma fa doon bañ dafaat naa ko wala ma ci ay mbir yu bare daal ba tax daal boo bugguma ci bugguma ci kilo nit daal ñii am na ñu ko bëgg am na ñu ko bëggul sëñ Touba foo gisee photo yi du du tax ñu ko jaam wala déet photo yi dañu ko jëf pour boo rombee fii ci buntu kër yi nga xam ne fii kat waa kër taalibe ay taalibe fi nekk loolu dong la waaye du leneen photo bi du dara nag kenn du jaamu photo bi kenn du ko kenn du ko raay kenn du ko dara parce que yooyu yëpp la xam nga boo yeewoo di raay raay di def sa jë yooyu yëpp cirque la waaye sëñ Touba. boo gisee kër gu nekk am ko daf laa tegtal ni fii kat boo fi duggee daa fekk sama moroomu taalibe loolu dong la waaye du leneen. maanaam li ma ci mën a wax daal mi ngi mën a rek ku jóg ni ma nga jëm jàkk ja pour julli ji yiw gi ngay am xéewal gi ngay am tax na man su ma toogee su ma amee ku ma ni kaay nga nataalal ma xaalis jaral na ma fi ba Tamba danaa bàyyi sama itti lépp ndax dana ma ko jaral. danaa dem parce que loolu même bu dul affaire somme bi may jox wala weexal gi may jox ak yooyu pour man cofeel gi ma ci am pour def ko xam naa ne sax na ba mooy fay daal te fay moo ma gënal bëgg boobu laa ciy am mbégte boobu naa ci am aussi quoi et puis naa ci am aussi parce que Cheikh Ahmadou Bamba boo ci nekkee tamit dëgg ci yow da nga koy gis kooku mu amul sax xaaral ma ñëw yaa xam ci lii la yaa xam ci lii la mais faa ko gis ko ربي بما يسرق الأسان خات فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء ربي بما يسرق الأسان خات فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمدي لرب الكريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملاء xam nga mbir yi dafa nekk loo xam ne mbiru cofeel lay doon mbiru cofeel la ñetti mbir daal malaa laa ci gis ci sama gis-gis parce que gis naa ni taalibe yi bëgg nañu xaadimu rasul cofeel googu ñu am ci moom ba tax daa gis ñu koy sol ci yëre daa gis ñu koy takk njël daa ci gis ñu koy def seen miir dañu xër daal bon ba tax am na si ñetti mbir yoo xam ne am na ñu koy gàllaajoo am na ñu koy tiitaroo am na ñoo xam dañ koy sol ku leen gis xam ne ñoom murit lañu am na ñoo xam ne tey bu nu ko yoroon tey am na ñoo xam ne bëgg bëgguñu ko sax def ci naaj bi ci miir bi parce que tellement que benn waaye maa ko doon defal un jour mu ni ma bëgguma ko bëgguma weer Serigne Touba ci naaj ma xamal ko ne que Serigne Touba dafa nekkoon ci naaj nekko woon ci ker dafa nekk ci naaj ba am li mu am booy xool euh, kaani moo ko neex suukar bu leen ne kaani moo ko neex suukar xam nga boo lekkee kaani dafa weex weex weex loolu muy weex sa làmmiñ dana weex trop ba ngay dal duutu ndox mu sedd waaye gis nga tafaay bi waxtaan bi buy jeex buy fin ci sa làmmiñ mooy dàq suukar mooy dàq lem ba كون بدين عالمين جاري أكرمني له بذكره وما ليختاره وليرحلهما وهابي الله الكرام القراء وببعقاء يا نبي سراء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 لجنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أقول في كلاب حين من الجنة دواطها بالكتاب bàyyi ah. yéen a yemal xayal sax incha allah yaakaar naa ne foofu su ma permettre sama def fa benn.